wa inna waa ndéem yéene na al musaafiru aji tukki ja iqaamata arbaxati ayaamin sax ñeenti fan bi mawdihin ci ab birëb aw maa wala loo xam ne yu sal yi dana jullee fii ci moom xis yi na ñaar fukk salaatan ci ay julli atam ma kon mu tàmbalee matal as salaata julli ka xataa yadu xana ba ba muy laxas maanaam ba ba muy dem rek min makkaani yi bàyyi ko ci bérébam ba daalika boobee yéene boo nekkee ci àtteb tukki bay wàññi nga dem ba ci béréb nag nga yéene faa sax ñeenti fan mbaa daal bu fekkee ne ñeenti fan yi moom du mat sax ci booy wàññi waxtu yi waaye lu mat ñaar fukki julli dana la fa fekk yu mat sëkk da nga fa fekkee ñaar fukki julli yu mat sëkk kon da ngay matal ba ma ngay bàyyi koo foofa wax bàyyi koo ñu seet na ba xam foo jëm nag léegi bu fekkee nag moom da nga fay faj aaju joo xam ni wóor na li ba tey balaa sotti faaw moom na nga fi am ñeenti fan kon soo àggee say boo daa tàmbalee matal ba tey bu fekkee da nga dox yitte joo xam ne nag moom xamoo kañ lay sotti mën naa gaaw mën naa yéex te saa yu sottee nga daal dem fa saasa kon na ngay wàññi rek moom ak lu mu yàgg-yàgg waa man xaraja ku génn wala muy salli te julliwu doon ak duhra tisbaar wala xafara ak takkusaan waqat baqiya te des minan nahaari ci bëccëg bi xadru salaasi rakkaxaatin kem ñetti rakka sallahuma kon mu julli leen ñoom ñaar safari yete ni ñu ñaari julli tukki yéen bu fekkee da ngaa génn doon tukki ba nga demee ba toll ci fañ war a wàññee nag fekkee yow julli woon ci subaa julli woon takkusaan waaye dem nga ba ba fa nga xam ne sa sunna mooy wàññi nga xool li des sa digganteeg jant bi so du mën fee julli ñett rakka dañuy jàpp ne kon yaar yëpp da nga leen di wàññi xam nga boo mënee julli ñett rakka boo jullee ñaar ñi muy tisbaar bi ngay jëkk a jot. nga daal dugal takkusaan benn rek balaa waxtu waa jeex mel na kon jot nga yaar yëpp ci waxtu yi ngay tukki te kon na nga leen di wàññi fa in baqiya ndem des na xadruma kem loo xam ne yu salli la rajulli fii ci moom rakxate yi ñaari rakka aw rakxat wala benn rakka salla kon mu julli ak zuhra tisbaar xadariyatan mu julli teew maanaam mu julli gu mat wala xasara mu julli takkusaan safariyatan mu julli tukki nee bu fekkee ba ngay xool sa diggante jant bi sonn ak mëni su faa julli lu mat ñetti rakka ñaar kay mbaa benn lañ fa mën a julli dañuy jàpp ne kon loolu takkusaan mujj moo ko moom kon moom rek nga war a wàññi tisbaar ngay njëkk ji waaye faaw da nga koy matal booy noppi na nga fekk sa takkusaan jeex waaye dañuy jàpp ne yaa sàggan rek waaye tisbaar ma ngi la rawee ca ba nga tukkee gutoon xam ne kam na ngaa dem ba fa ñu wàññee rek xool sa diggante jant bi soo ñu mën fee julli ñaar rakka mbaa benn dañuy jàpp ne kon atte wàññi nga toll waaye genn julli fi xaj kon julli gi mujj moo koy moom muy takkusaan bu ko defee tisbaar nag kon moom ngay njëkk a julli sa matal ko boo noppee teg ci takkusaan te wàññi ko ndax kon takkusaan moom dalaa fekk ci tukki bi tisbaar nag moom rawele ca da nga tukkee gutoon wala daxala doonte tàbbi woon na mooy doonte ñibbi si woon rek mooy max naa mi li xam si rek xaat ñeel juróomi rakk naa si yéen mbir mi aji fàtte laxumaa ñeel leen ñoom ñaar fàtteeg tey sallahuma kon mu julli leen ñoom ñaar xadariyatay ni ñuy ñaari julli teew maanaam muy ñaari julli yu ñu matal daa wax ne boo ñibbisi woon fa nga dëkk nga xam ne kon ñëw nga ci àtteb matal julli yi fekk ci yoon bi nag julli woo woon tisbaar julli woo woon takkusaan waaye ku seet sa diggante jant bi so ñu mën faa julli juróomi rakk dañuy jàpp ne kon ngaa war a julli tisbaar takkusaan te matal leen ñoom ñaar ñëpp mooy xadariyatay ni ndax ndegam ñibbisi nga te ñoom ñëpp xaj nañ ci waxtu yi kon danga war a ame àtte bi ñibbisi mooy julli leen ba ñu mat ndax xam nga juróom moom boo jullee ñeent tisbaar da nga dugalal benn takkusaan balaa waxtu waa jeex te julli moom boo ko dugalee benn ci waxtoom rek day mel ni dugal nga léppam ca waxtu wa ci àtte bi moom fa in kaana dem nekk na bi qadri arbaxi rakkaxaatin ci kem ñeenti rakka fa aqal la topp lu ko yées ilaa rakkaxatin ba ci benn rakka salla kon mu julli ak zuhra tisbaar safariyatan mu julli tukki wala xasra mu julli takkusaan xadariyatan mu julli teew xam nga léegi nga waxoon ba nga ñibbisee juróom moo fa juróom rakka moo fa xajoon fekkoon nag léegi ñeenti rakka moo fa xaj mbaa ñett mbaa ñaar mbaa benn fekk yow ci yoonu julli woon ci subaa julli woon takkusaan ñu jàpp ne kon li nga wax nii genn julli rek moo ko moom kon da nga julli tisbaar wàññi ko muy ñaar nga julli takkusaan matal ko muy ñeent ndax xam nga ñibbisi nga ba nekk ci àtte matal te li des ci waxtu wi genn julli ci xaj kon julli gu mujj moo koy moom muy takku sax kon moom ñu war a tisbaar nag moom ñu wàññi ko kon daal boo ñibbisee ba fa nga xam ne fa nga war a tàmbalee matal fekk julli woo woon tisbaar ak takkusaan te la des ci sigganteeg jant bi so ñeent rakk moo xaj ci nga julli ko ci mbaa ñett mbaa ñaar mbaa benn dañuy moomel loola takkusaan yu mujj kon moom nga war koo matal tisbaar ñu jàpp ne ma nga rawee ci tukki ba moom nga wàññi ko kon da nga jëkkee tisbaar julli ko ñaar tekki takkusaan julli ko ñeent wa in qadima ndéem ñibbisi na fii lay liñ ci guddi waqat baqi te des lil fajiri ñeel fenku fajar rakk xatum benn rakk paak faru topp lu ko ëpp wala mu yëkkun te nekkutoon salla di julli almaxriba timis wal hisha ak gee salla kon mu julli almaxriba timis talaaful mi ñett ndax xam nga kenn du ko wàññi wal hisha mu julli gee xadariyatan mu julli teew ndax na ngaa ñibbisi ci waxtoom nee na bu fekkoon ne ci biir guddi gi nga ñibbisi xool sa digganteeg fenku fajar ñu mën faa julli benn rakk mbaa lu ko ëpp dañuy jàpp ne kon léegi benn rakk bi mbaa lu ko ëpp kon gee moo ko moom ñibbisi nga ci waxtoom kon na nga koy matal timis bu ko jiitu woon na moom kenn daawu ko wàññi benn yoon kon da ngay njëkk a julli timis mu daal di mat sëkk ndax ñett lay doon gee itam ñibbisi nga ci waxtoom kon na nga koy matal wala xaraja doon te génnoon di tukki waxat baq yo te des fi ne lay li ci guddi ga rak xatul benn rakka faak saru topp lu ko ëpp salla kon mu war a julli almaxriba timis muy ñett ndax kenn du ko wàññi suma salla topp mu julli alxicha ak yee safariyatan mu julli tukki moom daal foo ko fekk ne la ñuy wax day jaadu rek moom ndax xam nga fii dangaa bàyyi ba ci guddi gi mu soob la nga génn ne maa ngi tukki fekk julli woo timis julli woo gee ba nga demee ba àgg ci béréb ba nga xam ne nag fa la ñuy tàmbalee wàññi nga seet sa digganteeg fenk ko fajar ñu mën fee julli lu tolloog ràkk mbaalu ko ëpp dañuy jàpp ne kon léegi timis moom danga koy matal naka jekk waaye nag ñëw nga ba ci fi ñuy wàññee dala des ci waxtu yi gee moo ko moom kon ko xam nga ñëw nga ba fi ñuy wàññee ndax wax wala waxara ji la wax danga génn doon tukki fekk julli woo timis ak gee ba nga tolloo ci béréb ba ñuy wàññee nag nga xool sa digganteeg fenk ko fajar ñu mën faa julli benn ràkk mbaalu ko ëpp dañuy jàpp ne kon loolu moom li nga yaari julli xaju bi rek julli gu mujj gi moo koy moom muy gee te yaa ngi fi ñuy wàññee kon ngay wàññi gee timis nag moo xam nga kenn daw ko wàññi naka jekk kon na nga koy mataw baabu di ab buntu la fii salaatil jumuhati julli jumaa wa sax yu dox ilal jumuhati jëm ci jumaa ja faridatun farata la buñ ne dox nag jubluwuñ dox sa tànk ndax day mel ne kon dangaa war a dox tànk suñu laa dugg oto mbaa leneen déedéet dem rek lañ jublu day weneen dem ci jumaa ja farata la ndax ndegam jumaa mëne su ko tolloole faaw nga dem ba ci jumaa ja kon dem dem ci jumaa ja farata la wa dalika loolee xinda juloo si imaam yi fa tooguk ilimaan ba xalal min bari ci kaw min bar ba wa axatate tàmbali al mu addinoona way nodd ña fil addaani ca nodd nga fi nga xam nag moom loo sàggan sàggan ak loo yee xam te lu yee xam te lu war ngaa jóg moom mooy su su ilimaan ñëwee ba toog ci min bar bi ba ñu nodd noddu ñaareel gi ñu teqale ko bu fekkee da ngaa jege la wër jumaa ja nga xam ne moom jóg dem ci la yomb lool kon bu la neexee toog a toog ba ilimaan ñëw ba noddukat bi noo tàmbali nodd noddu ñaar nga door a jóg waaye nag bu fekkee sosoo ci jumaa ji mel ne ku dëkk fii baa nga xaw a sori day aaj day aajoo nga jóg ci waxtu woo xam ne bu la jàmm rek dogee da nga fekkee julli ga waaye doo sañ a xaar nag léegi ba ilimaan ñëw ba ñu nodd noddu ñaareel li mu wax ni koo xam ne jege nga jumaa ja moo koy sañ waaye ku sori moom day jógee ci waxtu woo xam ne bu ko yàlla dogalee rek dana fekk julli nga wa sunnatu sunna sa al mutaqaddimatu sa aji jiitu bu la neexee wa sunnatu yoon wa al mutaqaddimatu aji jiitu an yasxadoo mooy ñu yéeg xii na isin ci waxtu woowee xalal mën naa ci kaw soorool ba fa yu addinoona te ñu nodd day wane ne yoon wa nga xam ne moom lañ miinoon ci jamono yonante bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ak ci jamonoy Abu Bakar ak jamonoy Omar ci Ousmane rek la soppi ko ñu nodd na yaari nodd waaye la nga xamoon rek mooy bu ilimaan ñëwee rek fekk waxtu yu jot kii nodd daal di nodd dañ daa am sooroo di ci yëg ndax kon ndax nodd gi yëkkatiku rek waaye bu dee léegi kon rajo yi ñu koy defee rajo lay nodd rek ñëpp dégg ko bu soobee yàlla li mu bëgg wax rek mooy la doon yoon wa dëgg-dëgg daal mooy dañuy bàyyi ba waxtu yu jot ba ilimaan ñëw ba toog ci commune bar bi ñu nodd képp genn nodd dong yem ci loolu moo xewoon ci jamono yonante bi xew ci jamono Abu Bakar xew ci jamono Omar Ousmane dana ko leeral léegi moom nag ci moom lañ tàmbalee nodd nodd di nodd ñaari nodd wa yaxrumu dana araam xiina isim ci waxtu woowee albay ku jaay wa kullumaak lépp loo xam ne yashqalu dana gàllankoore xani sax yi walis dox ileha jëm ci jumaa ja nee na nag bu fekkee ne ilimaan ñëw na ba toog ci minbar bi bañ nodd noddu ñaareel kon yooyu jamono jaay ak jënd ak lépp lu koy nuru day araam ci yooyu jamono lépp lu mën a gàllankoor kooku tey ko dem jumaa ji ne bu jumaa war na ko rek war na ko daal di bàyyi day daal di araam ci moom wa hadal asaalu gi leen noddu asaani gi aji ñaareel ahdasahu sos na ko banu umayata banu umayata mën na ne banu umayata sayidna Usmaan rek mu gënoon gàtt ñu koy firi dañ koy firee sax banu umayata sayidna Usmaan rek mu gën gaaw maanaam ni ñu ko waxee léegi jamono yonante bi ak Aboubacar ak Omar amuñu woon lu may genn nodd rek bu limaan ñëwee ba toog rek ki nodd nodd ñu daal di xutba daal di julli jamono yi sayidna Usmaan ñëwee ci xilaafa gi nag te dëkk ba xaw a rëy moom moo sos bu tisbaar jotee ñu nodd nodd gu njëkk nodd gu njëkk googu la sos bu ñaar gi nga xam ne nag moom moom la ñu def bu ilimaan ñëwee ba toog ci minbar bi boo ko dee seet moo mujj nii waaye moo njëkkoon ci xew-xew ba ci cosaan moom dong moo amoon gi ñu njëkkee nag nga xam ne moom bu jotee ñu nodd ci xaar na mbooloo bi ñëw nag ba ilimaan ñëw door a yëg ci minbar ñu nodd xutba nag ok googu mooy gu ñaareel gi ci booy seet ni mu tegaloo waaye mooy gu njëkk gi ci cosaan waaw gu njëkk gi moom la Seydina Ousmane sos waaye gu mujj gi moom fi la ko fekk moom rek moo amoon sax niñ ko waxee woon léegi wal jumuhatu julli jumaa tajibu dana war bil misri ci njënde njënde mooy dëkk bu mag wal jamaahati ak mbooloo li mu ne julli jumaa day ware ci ab dëkk bu mag ware ci mbooloo jàppal ne dëkk ba bala ñoo sañ a tabax jumaa day fekk ñu dëkk fa fas fa yéenee nekk di wéy fas ñu yéenee toxu waaye bu doon ay pël yu dajaloo ci benn béréb def fa wit nde rek lu nekkee bari bari duñu def jumaa nga xam nga moom pël yeeg sàmm yi dañuy topp rek fu ndox ak ñax am ñu nekk fa bu fa loolu bu fa loolu amatul ñu jóge fa jàll feneen kon nag xeeti pël yeeg sàmm yi moom dajaloo ci benn béréb lu ñu bari bari du tax ñu sañ a def jumaa te aajowoo daal ñuy def jumaa ja fa ñu nekk ñu fas yéene dëkk diwe yi nga xam ne yàllaay dogal rek seen toxu toxu am waaye dëkk diwe yi la ñu nar te itam nag mbooloo ma bari bari waay goo xam ne daañu doyloo seen bopp ci lu ñu def man koo defal seen bopp kon su mbooloo ma baree noonu ñu fas yéene dëkk diwe yi nag kon say boo ñu tabax jumaa biñ tabaxee jumaa ba noppi nag moom dafa tase ci mbooloo su matee fukk ak ñaar ñu bokk te ilimaan rek dal nay baax ñi ki mbooloo ñu bari woon na waaye ba jumaa ja àggee bañ koy julli daa fekk ñu bari toxu bàngaant am ba ña fa des taxu leen a baree noonu waaye daal mat nañu fukk ak ñaar ñu bokk te ilimaan su boobaa loola dal nay doy waaye nag bu dee ci yoonu Maalik moom mbooloo ma lum néew néew dana war a mat fukk ak ñaar ñu bokk te ilimaan su yéesee loola rek saye bañ julli tisbaar te bàyyi jumaa ja jëm jumaa ja itam bu fekkee yéesul seen néeg rek mu baax bu dee mag ña nga xam ne néeg yu baax yooyu ñax lañ daa am kon seen jumaa mën naa nekk néegu ñax bu dee jamono yi seng xewee nga xam ne seng gën a foor néegu ñax kon jumaa ja mën naa nekk seng bu dee jamono yi nga xam tabax nag moom moo xew jumaa ji lu mu néew néew faaw ñu tabax ko waaye buñ ko sengee maa ñu def ko néegu ñax ba mu yées dëkkukaayu nit ñi moom du doy waaye jàppal ne jumaa ja moom saa yu yéesu dëkkuwaayu nit ñi rek nga xam ne daal am na daraja yi dëkkuwaay yu baax ya nit ñi dëkkee rek daal nay baax saa yu dëkk ba réyee ba nga xam ne ñoom ca nekk bari nañ bariwaayu mën a taxaw seen bopp ci seen yitte mbaa boog am na dëkk yu ci sës yoo xam ne yu ndaw lañ waaye soriwuñ ci mën nañu dimbalante kon mënees naa tabax foofu jumaa wala xutubatu xutba ba fiha julli juma waajibat aji war la xabla salaat njëkk julli ga maanaam xutba bi ab ponk la ci julli juma ji mënu cee ñàkk tey dañu xutba ba la ñoo julli wa yatawakka u dana sukkandiku wa yatawakka u dana sukkandiku al imaamu ilimaan ba xalaa xawsin ci xala aw xasan wala aw yet maanaam taamu nañ ilimaan ji dañoo sopp rek ilimaan ji bu wut lu mel ne xala wala mel ne aw yet wala balamaan yi ñu yor jàppandu ca bu dee xutba wala luñ sopp la waaye jilisu na toog fii awali xaaj njëlbeenam nga wa fii wasatiha ak ci diggam ba maanaam balaa tàmbali xutba bi day toog as ndiir xutba bi ñaar lay doon bu xutba benn bi nag ba mat balaa tàmbali ba ca des ba tey mu toogaat foofu as ndiir war a tàmbali xutba ñaareel bi wa tuqaamu te dee fi taxawal asalaatu julli ga inda faraaxiha fa noppeem nga moom xutba ba saa yu xutba ba noppee rek dañu daal di jëm ci julli ga nga xam ne ñu susaloo ñoom ñaar wa yusalli dana julli al imaamu ilimaan ba rakxatayni ñaari rakka yee joxar dana biral fii maaj ñoom ñaar bil xidaar ci njàng ma yaqraw dana jàng fil ula ci rakka bu jëkk bil jumaxa cuur jumaxa wan xëy ak nuroog moom wa fi taaniyati dana jàng ci rakkab ñaareel bi hal ataaka xadisul xaasiya ci hal ataaka xadisul xaasiya wan xawiha ak lu nuroog moom daa wax ne ajjuma moom ñaar rakk lay am rakk bu ne gannaaw faatixa day amu saar saar woo jàng na mu baax waaye taamu nañ ca rakk bu jëkk nga jàng ca saaru aljumua rakkab ñaaral nga jàng ca hal ataaka xadisul xaasiya waaye jibu dana war a sax yu dox ga te mooy dem nga rek ileexa jëm ca moom xalaa man ci ka nga xam ne fil misri nekk na ci njënde la wa man ak ka nga xam ne xalaa salaasati am yaa li nekk na ci ñetti miil minhu tukkee ca jumaa ja fa aqal la topp lu ko yées dafa def nag minhu tàmbalee ci dëkk bu mag ba waaye foofu daamu wuute daañu ko leeral léegi maanaam koo xam ne yaa ngi ci dëkk ba jumaa ji nekk moom faaw julli jumaa gi war la dëkk ba bu réyee loolu mel ne Touba wala mel ne Ndakaaru te benn jumaa nekk fa it waaye yaa ngi ci dëkk ba moom loo sori sori rek war ngaa julli si bu la julli si waree rek nga war a ñëw mu des nag bu fekkee dëkk ba nga nekk bokku te dëkku jumaa ja dañuy seet kon diggante jumaa ja ak fa nga nekk ndax mi ngi toll ci ñetti miil mbaalu ko yées wala déet ñetti miil mooy tolloog benn farsax waaye waaye ñoom dañuy wax nag bi ko farsaxin ci lu toll ne farsax bëgg a yokkaale farsax ba dara kon nag bu fekkee miil daal jàpp nga ne ci benn tolloole bi daanaka kilomètre ak genn wàll la nde sax am na beneen tolloole boo xam ne ëppali na ko lool kilomètre ak genn wàll daa mel ni daal mën ngaa jàppee dëkk ba nga dëkk ak jumaa ja su tolloo ci juróomi kilomètre jëm juróom benn rek julli si war la su fekkee ëpp na ko nag julli si waru la mën ngaa julli si nag am tuyaaba ca julli si ga tey tam wecc sa tisbaar waaye ndegam dëkk ba nga dëkkee daal moom boo nattee digganteem ak jumaa ja ëpp na juróom benn kilomètre daal kon moom julli si jumaa waru la maanaam dañoo wutee ci ndax da ngay seet sa diggante fa jumaa ji nekk wala da ngay seet sa diggante catul dëkk ba xam nga dëkk bi léeg-léeg mu réeré ba nga xam ne boo seetloo digganteem ak jumaa ji ak catul dëkk ba dana mat ñaari kilomètre mbaa yooyu kon xam nga nga wàññiwaale loolu nga bañ ko wàññiwaale bokkut wax ji gën a wër nag mooy ci jumaa ji lañu tàmbalee wàññi rek buñ dee seet si diggante foofu ndax jël julli jumaa war na wala déet dañuy far seet rek jëmmi jumaa ji ci bopp ak fa nga dëkkee te bañ a seet catul dëkk ba fa mu yem ak fa nga dëkkee jooju wax moo gën a wóor wala tajibu du war xalaa musaafirin ci aji tukki aji tukki julli jumaa war ko doon sax fa mu bàyyi ko ak fa mu ñëw bëtu dox wàññi itam du tax mu war ko ne ba bàyyi ko woon fi dem Touba rek du tax julli jumaa war la foofu ca Touba te diggante fee foo xam ne bëtu dox wàññi wala xalaa ahli minan du caag yéenu ci ñoñ minan ba tey ñi nga xam ne ñoo ñëw minan te dëkkuñu fa xam nañ faa ñëw rek ngir aj si wala xumra si xam ne ko ay doxandéem lañ fa kon ba tey jumaa du leen war waaye ña fa dëkk moom jumaa dina leen war wala xalaa xam sin du caagéenu ci ab jaam jamonoy jaam ak gor amee jaam julli jumaa waru ko wala ba at du caagéenu jigéen ba tey jigéen julli jumaa waru ko wala sabiyin du caagéenu gone ba tey mu kàllaf la julli jumaa war waaye gone julli jumaa waru ko wa in xadaraha ndeem teewe na ko xabdun ab jaam ay mbir at wala jigéen wala yu salliha kon na ko julli tutee nag jaam ba bu amee ndigalul sang ba kon mën naa julli ji jigéen wala gone itam mën nañoo julli ji waaye jigéen ji moom day aajo wa teqale bu fekkee ne jigéen ju waxambaane la ndaw la ba noppi waaj boole ci nga xam ne dina yàqal góor ñi dara daañu ko geesu kon moom du sañ a julli ji bu dee koo xam ne amul taar nag ba muy mag moo xam ne naa bu dee ndaw lu jigéen loo xam ne amul taar te waajul boole ci wala muy mag moo xam ne kenn du ko geesooti kooku mu mën naa julli ji nga seetlu ne bu ñu nee aji tukki moom julli juma waru ko day fekk yéene wu faa sax ñeenti fan waaye boo yéenee sax ñeenti fan ca béréb ba julli juma ga dal lay war ba tey itam jigéen ak demam jàkka mbaa juma dañ koy teqale ñetti anam su fekkee ne màggat mu jigéen la moo xam ne kenn du ko jeesu moom mën naa julli ji bu dee waxambaane wu jigéen woo xam li ci ëpp kenn du ko geesu ndax amul taar te waajut it kooku sib nañ ko rek yem ci bu fekkee nag moom day waxambaane wu jigéen woo xam dafa am taar kooku nag day araam moom mu dem moo tax saraabu day wax naa wa xukumu xuddooriha alxurmatu fi shaabati annaaimati wal karahatu في حق الشابة التي لا تميل إليها النفوس غالبا والجواز في حق المتجالة كن فالأقسام ثلاثة كن يتخانيون لا وتكون رنك النساء جيجين خلف الصفوف الرجال ci gannaaw sapes goor ñi ah bu demee ci jumaa ji dañuy sàkkal jigéen ñi fa ñu nekk nekk ci gannaaw góor ñi wutal leen béréb bi ñu nekk foofu ñu bañ a jaxasoo góor ñi wa tax mu teg ci wala taxaw ji lu génn ilayha jëm ci moom ashabatu ndaw lu jigéen maanaam jigéen joo xam ne waxambaane la doon naa ko tudd léegi bu fekkee ne ku am taar la rawante na nu waaj boole ca kon moom day araam mu dem bu dee màggat bu jigéen moo xam ne nag moom kenn du ko geesoot nag kon dagan na mu dem ci jumaa ja wayun satu def ne déglu lil imaam ñal ilimaan ba fii xutbatihi ca xutbaam ba wa yastaqbiluhu te koy jublu annaasu nit ñi su ilimaan dee xutba des ko war a déglu kenn sañu ta wax kenn sañu ta aaye kenn wax mbaa di ko fettasu mbaa di ko sànni dara naa ko ay noppil mbaa dara loolu lépp ku ko def rek daal di bëgg a ñàkk tuyaabay ajjuma du tax nag sax nga war a baamu julli ga waaye da nga daal di bëgg a ñàkk tuyaabay ajjuma dañu wax naa isa qulta li saaxibika wal imaamu yaxtubu yawmal jumuhati an sit faqad laxawta lee mu ne itam nit ñi dañ koy jublu moom mi xutba am nañu wax ne ñi nga xam ne nekkuñ ca sàppi su njëkk sa dañuy jublu jëmm ja ña nekk ca sàppi su njëkk sa nag moom dañuy wëlbati seen kanam rek mu jubloo ko moom waaye duñu wëlbati seen jëmm daa am nag ñu wax ne ña nekk ca sàppi su njëkk sa ak ña ci gannaaw ñëpp a yem bu ilimaan dee xutba dañuy wëlbatiku jublu jëmmi ilimaan ja te loolu mi ngi cosaanoo ci wax yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ne urmuquuhu bi absaarikum wa asguu ilayhi bi aadaanikum li annahu ablahu fil ismaai daan daane ne leen ko ja ne ko jàkk ak seeni bët dëngal ko seen nopp ndax mooy tax ngeen gën a dégg bu baax a baax daa mel ne daal ñu bari li ñu sukkandikoo mooy bu ilimaan dee xutba dañu wëlbatiku jubloog jëmmam moo xam yaa nga ca sàppe su njëkk sa moo xam nekkoo ca sàppe su njëkk sa wal xus bi cangaay la laxaa ñeel jullit ajuma gi waajibul aji war la maanaam cangaayal ajuma sunna la soo xam ne su dëgër la suñu fonk la lool waaye moom nag boo sangoo da ngay daal dem fa saasa boo sangoo toogaat lu yàgg demoo rek mbaa nga sango ba noppi nelaw mbaa nga lekk te fekk na nelaw ga mbaa lekk ga sa coobare la waaye loruwoo ci woon lool lool dal ngay ñàkk tuyaabay cangaay la maanaam boo bëggee amaat cangaayal sunna faaw da ngay sanguwaat door a dem boo sangoo daal dem nag moom doonte yàgg nga ci yoon wi itam du ci dara moom baax na wat tahjiiru njolloorlu ga xasanun aj rafet la walay sa daalika waaye déet loolee fi awalin nahaari muy nekk ci njëlbeenu bëccëg ba maanaam bëgg nañu nga teel dem ci jumaa ji waaye nag bu fekkee am nga liggéey te jàppewoo bisu ajuma ji bisu noppalu bëgg ñu nga xëy suba teel rek daal dem ci jumaa ji xaat man ngaa xëy ci sa liggéey rek nekk ca ba sa diggante ñu noddu war a des waxtu nga daal di fexee dem de sax bu fekkee da ngaa jàpp ne liggéey bu ne war naa am bisub noppalu nga far jàppi ajuma sa bisub noppalu loola moom ajuma ji yëpp mën nga koo noppalu te mën ngaa teel dem jumaa ja ndax bari sa jaamu yàlla foofa ndax yàlla moo jagleel ajuma jullit ñi nasaraan nag moom dañoo féetewoo dibéer yahood yi féetale seen bopp bisub gaaw waaye jullit ñi moom bisu ajuma mooy seen bisub feet kon nag koo xam ne jàpp nga ko muy sa bisu noppalu mën ngaa teel dem jumaa ja waaye koo xam ne am nga ci liggéey nag la gën mooy nga dem ca liggéey ba ba nga xam ne sa digganteeg ñi noddu war naa des wenn waxtu ndax nee nañu ci na addis ba indee sa digganteeg ñu nodd bu desee wenn waxtu waxtoo dañ koy xaaj juróomi xaaj ca kaw ca kaw na nga teel demee nag ci juróomi xaaj ñooñu noonu la sutuyaa ba di gën a baree boo ko defee juróomi xaaj ku dem ci xaaj bu njëkk ba da nga am tuyaabay gëleem gu suur ku dem ci ku dem ca xaaj ñaareel ba am tuyaabay aw nag ku dem ci xaaj ñetteel ba am tuyaabay xaaf bu rëy mu amee béjjën ku dem ci xaaju ñeenteel ba am tuyaabay ak ganaar ku dem na ci xaaj ba ci mujj ci ba nga ko defee juróomi xaaj xaaj ba ci mujj ku dem ci xaaj mujj ba nag amee tuyaabay ab nen addis ba dane man ixtasala yowmal jumuhati summa raaha fi saaxati al ula fak annama qarraba badana wa man raaha fi saaxati attaniyati fak annama qarraba baqara wa man raaha fi saaxati attaalifati fak annama qarraba kabshan aqran wa man raaha fi saaxati arraabihati fak annama qarraba dajaaja wa man raaha fi saaxati alxaamisati fak annama qarraba bayda fa ida xaraja al imaamu xabaratil malaikatu yastamihuna dikra nga xam ne kon daal da ngay xaar ba nga xamee ne sa diggante waxtu war a nodd rek des na waxtu waxtu woowu na nga xaaj ko juróomi xaaj xam ne loo gën a te loo gën a teel a dem nag ci juróomi xaaj ñooñu rek nii la sutu yaa bay toll ci ni ko addis bi teqalee nga xam ne kon daal tudd juróomi waxtu waaye jubluwut juróomi waxtu wenn waxtu woowu rek nga xam ne moo njëkk ñu nodd la bëgg ñu xaaj ko juróomi xaaj nag te xam ne noo gën a teel a demee rek surtout yaa ba gën a baree noona wal yatatayyab na gëttu laxaa ngir jumaa ji maanaam taamu nañ nga xeeñoo xet gu neex wayal bas na sol ahsana siyaabi yi gën jaa rafet ay yéreem bëgg nañ ba tey nga sol sa yére yi gën a rafet waaye nag bu dee fii moom nee nañ ya gën a weex lañ jublu bu doon bu doon korite bu doon jul korite mbaa tabaski moom du gën a rafet rek waaye bu dee fii moom nee nañu gën gaa weex la ñuy gën a taamu doon daa màggatam bu gënee weex mooy gën ya nga xam ne moom dafa weexut wa axabu li gën a sopp ilinaa jëm ci nun Malik añ yan tarifa moo di mu walbatigu bax da faraaxiha ci gannaaw noppeem nga li gën nag mooy nee nañu buñ sëlmalee rek nga daal di génn te bañ faa jekki di naafile waaye nee nañu nag buñ dee seet ci wàllu sunna rek moom sàmm nañ nga naafile fa ñaari rakka mbaa ñeent wala boog boo ñu boo ñu bisee ba ci kër gi daal di naafila booy jàng téereb sëriñ Tuuba bi tudd al jawharu nafis da nga fa gis mu wax ne gannaaw julli jumaa gi daañu sip nga naafila bu fekkee ne ilimaan génnut waaye na su ilimaan génnee mbaa waxtu génnam jotoon na xëy na dafa am yitte di fa waxtaan mbaa dara kon sibatuñu naafila am na ne nag yonante bi daal moom su ma saa julli ba noppi day dem ba këram nag jullee fa ñaari rakka waaye itam nag la alxuraan wax ne fa isaa qudiyati salaatu fantashiru fil ard bu julli gi jeexee tasaaroo leen ci suuf si jubluwu ci rek ne daa war ngeen daal di war a génn tasaaroo ci suuf si déedéet moog ba mu ne wa isaa xalaltum fastaadoo maanaam bu ngeen yewwi koo ci aj mbaaxum rek dem leen rëbb ji ak dagan rek la ci jublu mooy lañ la aay woon rek ci rëbb boo xasee yewwi ko ci aj gi mbaaxum rek gi am nga sañ-sañub dem rëbb ji fii itam ñu wane ne rek yonante bi ca bu njëkk dañ daan jiital julli gi door a xutba am yoon boo xam ne nag moom daa julli bay xutba mbooloo mi nag dégg ñuy tëgg tëggum ndënd wane ne njëgg ma ñëw na ñu daw tasaaroo bàyyi ko moom rek mu taxaw yàlla ne leen nag bu leen ko defati da ngeen toog ba lépp noppi ngeen door a dem nag bu lépp noppi am ngeen sañ-sañub dem tasaaroo wuti ci ngëneel yàlla yi gannaaw bi nag lañ tàmbali di njëkke xutba bi mujje julli gi waaye ba loolee xew moom booba dañ daan jiital julli ga mujje xutba ba wala tanafal naafila insha ndeem soob na ko xabla xaaj ak njëkkam maanaam boo mënee jiit si daal naafila kem la nga man balaa ñoo taxawal jumaa ji muy balaa limaa na ñëw ba ñu xutba ka julli loolu lañ gën a taamu wala yafalu du def daalika loolee al imaamu ilimaan ba ilimaan bi ci boppam moom su ñëwee te fekk na waxtu yu jot na mbooloo mi teew na lu ñu taamu mu nekk mu jekki fay naafila dañoo bëgg mu daal jekki-jekki daal di yéeg minbar bi daal di xutba wala yarq na yéeg al minbara minbar ba kamaay duxul saa yu duggee daa war a firi kamaay duxul naka mu duggi waaye saa yu duggee li bëgg a wax mooy ndegam daal waxtu jot na te mboolooy moom ak si nañ ba toog di ko xaar daal yëkki-yëkki daal xutba rek moo ci baax baabun li ab bunt la fii salaatil xaw fi ci julli ragal nga tudde julli ragal ndax mooy bu jullit ñi yaakaaree ne que bi nekkee di julli far yéefari song leen gaañ leen te julli gi waree su ko bàyyi nañu def nag kon loolu moo tax ñu koy tuddee julli ragal wa salaatul xaw fi julli ragal fi safari ci tukki ida xaafoo ndem ragal nañu alxadu wa noon ya an yataqaddama mooy bu jiitoo al imaamu ilimaan ba bi taifatin ci ab kuréel wa yadaxate muy bàyyi taifatan ab kuréel mu waa jaxatal xadu wi ci jàkkaarloog noon ya fa yu sal yi tey julli al imaamu ilimaan ba bi taifatin ci ab kuréel rakxatan benn rakka summa yes bu topp dana sax qaayiman mbir mi mu aji taxaw wa yu salluuna te ñu julli li am fusihim ñeel seen bopp rakxatan benn rakka summa yu salli moona topp dana ñu sëlmal fa yaqifoon te ñu taxawi makaana asxaabihim ci bérébu seen àndandoo ya nee na bu fekkee ne ragal nañ ne bu ñëpp àndee di julli yéefar yi gaaw song leen gaañ leen kon bu fekkee